ahlan bikum ceebu jën penda mbay bu saf sàpp xam jën yu ngand yu ponkal nooy neex ñu rax ca yaabooy bu dijj bi léegi tey mu del si waat Sénégal ndax xam ngeen na jën fa manqué woon ci réew mi waaye kilifa yu bees yi ñu dénk réew mi fa ñoo xaaye ay bato yu bari tubaab yi yu doon ñëw fii Sénégal doon xuuf paa yóbbu suñ jën yëpp ndax wàllu licence de pêche yi ay tappale xanam gu jaaru yoon ci lañ ko doon joxee ba tax le réveil yéen a kaay na loolu nag jeex na intaha c'est fini ah, jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi faatu Diouf fa génnee list bato yi nga xam ne fi mu toll nii bés ni ki tey ñoom rek ñoo xam sañ-sañ napp ci géeju Sénégal gi ay jën mu nekk dogal bu xam solo ndax fi mu toll nii bato yi nga xam ne ñoo dëkk fii ci réew mi Sénégal ñoom la ñu jox ñoo gën a bëri fuuf bato tubaab yi ndax ñu ngi toll ci cent trente deux navire tubaab yi moom xam nga ñaata bato lañ leen may fi mu toll nii ñu napp Sénégal fukki bato ak juróom-ñeent lii yéen a kaay na kilifa yi kay jomaay gi waaye ndax yàlla sénégalais fa ñoo sonnoon ci jën yuy manqué te tubaab napp yu bon lañ doon napp suñ géej gi luñ soxla ak luñ soxla lépp lañu daan yóbbu réew mi yéen a kaay na Bassirou Diomaye Faye kay ginnaaw bu lijjantee wàllu suuf tappale bi ci réew mi fi mu toll ni fa lijjanti wàllu géeju Sénégal gi la Soleil yéen a kaay feelu ko na ay navire bato yoo xam ne fañ leen a jox sañ-sañ ñu ñëw napp ñi nga xam ne nag joxuñ leen sañ-sañ kenn dootu fi nappatee c'est fini intaha laas yéen kaay na ay mbir yéeme nag moo am ci liste boobu ak licence de pêche nga ay bato yoo xam ne xamuñ sax ci këy rek leen bind waaye gis nañ ci tamit ay bato yoo xam ne France la leen moom ak Italie mel yu bokk turbine yéen a kaay mel Bassirou Diomaye Faye lijjanti na suuf si tappale gi géej gi jën yi waa léegi hôpital yi nag kañ lay toog rek dem seeti leen bett leen ndax mën a gis seeni problème jafe-jafe ak nuñ ko saafaraaye indépendant yéen a kaay mel ni ko daanaka xaw ma kañ la daal waaye li ma xam mooy wàllu napp gi géej gi lim ci def dëgg-dëgg mooy yemale ak li jaadu li nga xam ne daf ci daan am nag ci wàllu napp gi te jaaduwutoon fa ko jubbanti ndax fi mu toll nii bato sénégalais yi ñu dëkk ci réew mi ñooy ëpp fi mu toll nii lu ñu napp que tubaab yi leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy ne xam na politiciens yoo xam ne ay ponkal lañ woon fa ñoo xarañoon ci wàllu politique waaye fi mu toll nii jeexal nañ de à la traité Sud Quotidien ne bokk na ca Khalifa Sall à na jeexal na ci politique su yow mu dem toog noppalu ji naka noonu Idrissa Seck dee na wett ci politique fi mu toll nii Diop Decroix Moustapha Niass Ablaye Wade Aminata Mbengue Ndiaye ba ca bàcc li turbine yéen na PS AFP PIT LD du ñàkk PSD ñoom ay parti politique yoo xam yoo xam ne ci këy rek lañ nekk waaye xamuñ benn nit l'observateur ne Macky Sall nag ak APR fay ragal ñu réeroo de ndax Macky bu bëggee nekk bitim réew na fay jiite APR di ci andi ay dogal fay ragal li dal PDS mujj dal leen de ba tey l'observateur ne Pastef timit fay ragal ñu xaw waneen yoon fi mu toll nii soppi doxalin ah yow tubaab bu ñuy wax Mélenchon bi ñu fi bëgg a andi dalal ko fii foogu leen fay xajamal jëflante diggante réewum France ak Sénégal ñu jaxasoo ndax faa lay wax leen ñii li ñu def xam nañ ko de jomaay fay moom moo yor pale ba ak lépp lu ca aaju moo koy doxal Ousmane Sonko moo yor parti ba Pastef lépp lu ca yor moo koy doxal ñoom noonu lañ ko séddale de ñiy séddale nag suufu réew mi di ko caxat-caxatee ci anam gu jaarut na leen wër na fi mu président jomaay fay fa leen di lukkat de mi ngi leen di rëbb critique yéen a kaay moo ñu ko xamal ba ci ñi tappale xalalu réew mi sax sàcc ko fañ koy a kaay moom fa xëy di ñu xamal ne chantier yi ñu doon liggéey na tànkam de ndax kaay moom fa xëy di ñu xamal na pôle urbain bu jam ñaajo ay mbir yu garaaw tappale doxalin bu jaarut yoon moom lañ fa nemmeeku. ko seetal ñoo xam ne fañ leen a affecté ci anam gu jaarut yoon wàllu détournement ak yorin bu lëndëm daal ba ci sax jëwriñ dañu dénk wàllu wér-gi-yaram foofu gis nañ fa wàllu tappale ak ay mbir yu garaaw bés bi yéene kaay ko xamal yor yor yéene kaay moom it fa ñoo xamal wàllu tappale ci suuf ca kër Moussa waa Pastef yi fa nekk fa ñoo joxe list ay mbir yu garaaw crime yoo xam ne maire ba di Momar Cisse fa koo def ñu ne ñu ne déetawaay caaroy gaar conseil municipal ya fa ñoo ñaawlu yorin bu garaaw ci wàllu suuf boo xam ne seen maire ba mbay seen fukki liggéeykat ak juróom-benn ya nga xam ne a kajji dàq ca hôtel ba ñuy wax kin fat place ci xanam gu jaarut yoon fa ñu jëlaat leen far force fra force doole mbaam man info yéen a kaay fekk fa Thierno Bocoum fay sëkkatal président Diomaye Faye kilifa yu bees yi ñu dénk réew mi Thierno Bocoum fa leen a wax ne yéen kat la ngeen digoon sénégalais yi yéen cay tàmbalee génn de ba ca njëkk mooy directeur général yu bëri fa ngeen leen a fal te defu leen appel à la candidature comme ngeen ko waxee woon ñu ne déetawaay faa bëgg am amnistie bii ngeen jëlee ko fi su ko defee ñi rey ay doomu Sénégal ak ci ñaxtu yi fi amoon yépp ñu yóbbu leen ci yoon leeral yëf fi naka noona tamit fa ngeen a war a def déclaration de patrimoine ñu xam seen xalal ji pour ëllëg bu ngeen fi jógee ko ba tey Thierno Bocoum fa wax président Diomaye Faye na ko Serigne Bassirou Gueye mële waratuta continuer di jiite OFNAC ndax moom ab procureur la fi woon dossier yu bëri bañ ko ko joxee fa ca tegoon concom léegi kooku naka ngeen koy seetaanee muy continuer di jiite OFNAC fa faa war a jógee de loolay dëgg ba tax léeg si ko yéen a kaay na ma ngay yu bëri yu ñu a lijjanti ak xolaat seen doxalin ci niñ tàmbalee yor réew mi ba tey a kaay fa bi fi nekkoon ministre ci jamonoy Macky Sall xam moom professeur la université bu ndakaaru léegi nag fañ koo toxal affecté ko ifan waaye syndicat ya ñuy wax sudes ñoom fañ a wax ne d'accorduñ ci wala boog xanam nga jaarut yoon direct news yéen a kaay na faa leen di fàttale nag Ismaïla Madior Fall mii tailleur constitutionnel moom la ko gars yi tuddee woon ay mbir yu garaaw la wax ne moom la doon def <laughs> na leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne journaliste bi ñuy wax Babacar Touré kéewloo fa jéggalu ki ñuy wax Baara Taal fa ko a journaliste bi ñuy wax Pape Alé Niang ci njàmbaaram ñeme dëgg bëgg réew mi yàgg bañ injustice jafe-jafe yu nekk mu jaar ci ba tey mu jiite RTS ki jiite réewum Sénégal nag Bassirou Diomaye Faye fay dem réewum Côte d'Ivoire ni ki tey ci talaata ji teral yéen a moo ñu ko xamal enquête yéen a kaay fa ñoo xam ne liggéeykat yi nekk ci mairie yeeg yi ni mel collectivité locale yi seen geraw ba fa gën a takkarnaasa fi mu toll nii seen àq ak seen yelef la ñuy sàkku ki sàkku woon ministre yi ñu démissionné ci seen poste maire yi muy a kaay fa ñoo mel ni daal Birame Souleye Diop ba léegi maireu Thiès la tekkee gu ndoomal tànkam de tàggat yaram Ligue des champions Paris Dortmund lay dalal fañ ko mbuqi woon nag ca ale ba ndax dana fayu ba dem final li ci kanam rawul ay gët li rawut l'observateur di mbir mu yéeme te garaaw fa xëy di ñu ko nettali yaaw seetal fa xam benn soxna soo xam ne fa xam jëkkër léegi mu dem ca xàll ba benn mason gis ko fa rek ñëw daanee ko ne fa koy siif violé ko tëdd ak moom ndaw sa na ko maa bañ mu ne ko far force wala ma rey la bi mu daanee ndaw sa nag ba summi tubooy ja rek ndaw sa fa jël ñaari loxo mi rek jàpp ca mamat turéem ya suuf ga yuuxu ndaw sa di bës rek foo tollu dégg wa yaaboo yaay baal ma dang ma rey ndaw sa di bës rek dem ba maçon ba presque nokketu tut mu dee mu doon di ko bàyyi te daw dem yëf yaa nga amee ca diiwaanu Louga waa ma ne merci beaucoup très bien shukran loolu baax na ci maçon bi yow nga war a dem tabaxe ji ay kër ngay dem di jéem a dootoo ko defati de yéen xale yi jigéen yi daal ak soxna yi gis ngeen nu ndaw siy def dee leen def noonu rek góor gu leen a <laughs>